xam laa ko seq laaw ak moom mi nga xamante sama rakk la. ak Madou mi nga xam moom la àndaloon ñëw. d'accord alors euh, coow loolu ñenn ñi di tuddee wombalaat di law di law di law ba barki Demba Ndiaye ñu gis coow lu ni mel éclaté ci ab plateau télé buñ la buñ la invité woon déjà ñu taxaw ndegum ci invitation bi ñu la invité woon 2STV ci émission bi di confrontation gis nga depuis lors yow yaay buzzé léegi léegi en off maa ngi la koy toj naan la sa buzz bi nag man jaaxal na ma ndax coow lu nekk yaa ngi ci biir. comment ça se fait déjà bu ñu taxawee ci loolu Cheikh Be Cheikh Bara Ndiaye député nangu dem ci ab émission bi nga xamante ne dañ ko fa boole ak seetkat bu tudd Mara Niass. waaw fi may wax rek mooy damay jégalu askan wi jégalu waa Touba ak samay mbokk yi nga xamante ni samay mbokk dara lan ak Sénégal yi nga xamante ñoom ñëpp am lu leen naqari ci mbir mu amoon te mbir mi mbiru nekk mbirum complot parce que après ginnaaw bi xam naa ne complot la parce que ñett ñëpp ñi ngay wax noonu. déggal nañ si bëccëg gi ba programme loolu xam naa ko mais xam nga àddina nit bu fekkente ne ba mu tàmbalee politique ba tey yàgg na lool mi ngi doog a juum te njuumtu boobu ma nangu naan ne damaa juum parce que fa ma dem warum fa woon a dem parce que boo demee tey ba nekk candidat élection présidentielle am benn niveau bi nekk député ñaari yoon. bokk foo xamante ni fa la ñëpp bëgg a bokk. di président mouvement jàppal ma waaw nekkal fa askan président mouvement nekkal fa askan nekk coalition bi nekk candidat élection présidentielle. dëgg la sama nattungoo ci politique Macky Sall ak son Sonko. te loolu wax naa ko mais xam nga nit bu fekkee na nga ko wax junj ko te la nga ko junju dégg ko wala bëgg koo dégg lu fa am lu nekk da ngay xam loolu yàlla moo ko dogal parce que nag damay jàpp ne yàlla moo ko dogal ndax la ma fa dégg bu ma fa demutoon du ma ko fa dégg waaye nag euh, lépp lu ma wax lu nekk. askan wi nga xamante ñoom laay defendre tax ñu wax ma ko askan wi jaral nañ ma ko parce que bu doon sama jëmm kese Cheikh du Bara Dolly du dem si ay plateau wala mu dem di wax loo xamante ne ay nit yoo xamante ne xëy na bokkuñu intention si moom wala ni ko yàlla def neexu leen tax ñu bëgg a yàq deram ak imaasam loolu jàpp naa ne ci réew mi moo lay wan ne la gor yi politique sax ñimeetuñu politique parce que day am foo xamante nii ci àddina sax sama koy képp ku mënta bàyyi yonante bi ci wax ju ñaaw mënoo bàyyi kilifa diine yi ci wax wax ju ñaaw boo waxee wax ju ñaaw Cheikh damay dama def koy barkeeloo ci loolu te Sénégal fi mu toll daanaka wax ju ñaaw moo fi gën a nekk sax star wala moo fi gën a dëgër wax ju waxi dëgg ndax boo waxee dëgg ñu mere la te dëgg mooy li war a gën a am gën a sax ci dëkk bi boo waxee ay fen wala nga def loo xamante ni day tax que moo am ay bës nit ñi ci ñi xam bëgguñu lu baax jëmuñu fenn ci li ñuy gën a amee Euh, maanaam dafa mel ni kontante loolu nag dafa dugg ci société Sénégal te loolu gàcce la ndax tey kilifa yi war a wax yépp tey kenn ñi mu wax ndax ko wax ñu saaga la. ndax la invité ba ci plateau bi que man xam naa ne xam naa ne xam naa ne complot la loolu lañ def mais yàlla suturaal na ma demee ba nga xamante ne xam naa ne mënu ma toog naa génn dem te génn dem googu noonu mooy li gënoon si man parce que taalibe yëpp tàmbaloon nañoo ñëw foofu ci buntu bi te bu fa dañu amoon tamit bokk naa si ah loo xamante ni waaw yëf yi yeggoon na ah, na foofu parce que xam nga ñun damay fa doon ñaari ndomba tànk yu yor parce que man muuma sama bopp askan wi moom taalibi Sëriñ Tuubaa yi nga xam ne dañoo yaakaar suñu maam ngir jëmi Sëriñ Tuubaa duñ bëgg kenn koo xamante ni tey ngi wax ci Sëriñ Tuubaa ak sëtam lu loo xam ne du may góor naa ne mais sëtu moom moo choisi def politique waaw xam nga xam nga ñun politique bi ñuy def dañu bokk politiciens yi parce que ñun dañuy bëgg di wax dëgg ak ku man di àndal dëgg la ñuy bëgg wax parce que ñun xooluñu ko ñu mere ñu ko ànd ak ñun lépp lu ñu ci wax ngir jëmmi yàlla yàlla mi nga xam moo tax ñuy def ak askan wi nga xamante ni bëgg nañ ko leen di waxal ak bëgg nañ di dégg loo xamante ni tey dëgg la ak seen alal ji ñuy yor ñu koy saax saaxee ñu mën see gis seen bopp loolu bu fekkente ne yow yaa ngi koy wax am ñoo xam bëgguñu loolu lu du sax su ko ñu nëbb askan wi li nga xam mooy li war a am di leen gëmloo ay fen loolu jàpp naa ne bu boobaa ñi nga xamante ni tey yow yaa leen tax ñuy taal seen tele di taal seen rajo bu ñu tuddee sa tur ngir di la déglu ngir njariñ si war a jële kooku bu fekkente ni gis nañu leen di def loo xamante ni lu ñu war def la dañ si am naqaru xol dem ba tey daanaka li ma dégg si ay message ak ay kilifa yu ma woo ngir naqal yoo bokk man soldaati boobu ba ci waa Touba ak ñëpp ak Yoof ak Laayeen ak ñëpp kenn ku nekk yëkkati sa sa kàddu ngir ko xam ni dañoo laal pas-pas mooy tey nit mën nga ko mën mën nga ko weddi mais nga teg ay argument mais comme li am am na. mais ñoom weddi nañu wax de te nit boo plateau boobu waaw nit boo nawloo xam nga daanaka sax. ay ay coow li am solo mooy loolu sax amul solo. li am solo parce que xam nga man li mu bëgg. da am ay nit yu la sopp waaw li ma sopp ay nit également yu nga xamante tey ba ñu yéegee dañu lay invité ku ci nekk jébbal nga sa laaj pour comprendre ce qui se passe. c'est important laataa ñuy dugg ci yeneen point nga leeral euh, moom parce que Sangote yaa baat muy wax dëgg mais wax dëgg boobu dafa mel tout le temps dangay ngay da nga ci am incompréhension ak ñenn ñi parce que ñu bëri dañ naan Cheikh Bara Ndiaye Cheikh Cheikh Bara Dolly amul bàmmeelu biir Bara Dolly lu mu xam génne ko ci place publique xam nga loolu ñu koy wax da ngay xool maanaam ñen ñoo koy wax kan moo koy wax Cheikh Bara Ndiaye wax na ko voilà mais kenn la si dix-huit millions de personnes kenn la si Cheikh Thioro waxoon na ko waaw mais ba tey deux personnes la kon ci dix-huit millions de te li ma wax rek man duma leen ko wax parce que du toog si plateau di wax Cheikh Thioro wala may wax Baara euh, wax ji ma wax lu ma ko def parce que jomb naa loolu xam nga la laaw mooy dafa am gën ay kuréel yoo xam ni dafa mu installé wu ci réew mi ñu ngi dund ci communication ak ci darajay Ousmane sonk pour mën a dund parce que amuñu métier bu fekkente ni Ousmane sonk mi ñuy dund ci darajaam buñ ko tuddee nit ñi may leen bës di leen jox seen alal. wala bu fekkee ne dañuy def dara ñoom ñuy bàyyi seen yitt di ñëw si kooku ngir Ousmane Sonko mi ñuy dara nan xam ne Ousmane Sonko ba leen jox dara ja te man Ousmane Sonko jox ma dara ja man li ma yor Sëñ Tuubaa ma ko jox ñooñu nag duñ bëgg mukk nag askan wi nga xamante ni maanaam ñoom dañ leen a takk seen ñu réer ñenn yi nga xam ñoo war a wax ñu xupp leen su boobaa man mi nga xamante ni ma te xupp moom lu ma dara war naa taxaw wax askan wi li xew tey bu fi Seydi Lamine nekkoon di dund am na ñoo xam ne toog si plateau télé fi sax fajjari. parce que koo xamante ne heure boo fa toogee xas nga ñëpp ñu fi nekk muy ñuy politique muy kilifa diine yi te doo dégg kenn ko tontu te ñooñu ci nag ñu am na njaboot ñaareel bi laayan bii nga xamante ni sëñ maam Seydina Issa Laye liggéey bi mu liggéey kilifa gi mu doon. def célébration maanaam le 10 ak le 11 seen porte-parole yëkkati ay kàddu ni seenu njaboot yéen maa ngi leen di sant bàyyi leen toj bàyyi leen saaga bu leen dem ci ay manifestation benn nit koo xamante ni yow kenn mëntu comprendre nga taxaw ni yéen li leen seen kilifa sant bu leen ko def sëñ mu taxaw woot ni jàmm la bëgg ci réew mi nga gis ay nit yoo xamante ni jóg nañ jóg Touba manifesté wu toj fay station ñu ne bu kenn wax suba si ma réew la ñu ne man kilifa diine la moo ma gënal politique bi bu nit ne yéen kilifa diine yi dama am njaboot mu ne yéen kilifa diine yi bu fekkente ni seen njaboot gi ñoom njaboot gi sant seen kilifa sant na leen dara na ngeen lànk dal di wax ni yéen bu leen seen ndey ak seen baay sante na ngeen lànk Sénégal yëpp toog di xool loolu ma war koo wax ba ma ko waxee ñu saaga mais est-ce man dama war a noppi nekk complice pour ndaw ñooñu. li leen di dogg seen xel yi te ñoom amuñ si benn intérêt ñu bàyyi la ñoo ñu koy continuer wala man dama tax wala wax ne yéen ndaw ñi na ngeen xam ne li ngeen mën a dundee ëllëg yéen a ko war a wutal seen bopp bi leen seen waajur jur boobu ñoo ñu xamoo leen leen woon ko loon bu leen kenn maanaam dugal si yàq sa alal yàq sa jëmm yàq sa askan parce que nit ku buggul sa bopp mooy ki nga xamante ni lu ñëpp bokk te nga war koo sàmm yaay dem di ko yàq man loolu laa wax askan wi. daan ni leen waaw déglu ma rek mais mais man mais ba tey waxeexuma man man damaa def point de presse. wax askan laa waxal. loolu moo askan loolu laa gëm te si laa nekk daan ni leen képp ku leen wax ni dem leen génn manifesté wu ma nga bàyyi njabootam si biir këram. muy jabaram ak ay doom daan ni leen man mii samay doom nekkuñu fi ñu ngi bitim réew di jàng pour am xam-xam ñu ëllëg yooyu mën a yilif réew mi loolu laa gëm. pourtant yow da nga daan ànd ci yooyu manifestation. man mosoo koo dégg yow en tant qu'opposant man mosoo dégg. ma ne leen wàcc yéen la ñuy dégg ngeen naan Macky Sall il faut damaa bëgg nga wax askan wi. mosoo dégg Cheikh Abdou Bara ni yéen ndaw ñi dem leen ngeen manifester dem ngeen toj. parce que du ma ko def. non waxuma wax nga loolu waaye dama ne tamit kenn di rien consent bu xale daan génn manifester loo daan def. lu ma daa def toog sama kër daan na leen wax ni bu leen manifester parce que man du ma manifester man du ma manifester wu lan moo ma ko jaral. d'accord mais na wax dëgg Cheikh Bara ànd na yegg na ba ci yow nga jëflante ak nit dara nga toog ci plateau télé def yooyu déballage par exemple. mu toog ci plateau télé wax ni maanaam nit. bu fekkee fenn Bara Ndiaye ni ko man yow yow. la Amadou Ba moom bëgg. te moom également nee na Amadou Ba moom sa candidat. man dépense naa loolu man war nga xam ndax yow wax nga ni léegi nii man maay sa candidat kon xam nga ni man candidat la boo xamante ni xam nga yaa wax loolu. kon nag mënoo nekk yëpp am xam na ni man maay candidat bi gënoon a sérieux si candidat yi yor doomu daara programme nga xam nga li am solo mooy ñun ñi nga xam ne ñoo nekk doomu daara nga xam ne c'est la première fois histoire Sénégal ku tudd Cheikh du sant Mbacke dëkk tuubaa nekk doomu daara nekk candidat élection présidentielle am parrainage am déposé caution lépp lu ñu war laa mu laaj ko ma bokk si liste yi nga xamante ne boo demee buntu conséquence dama gis sama tur kooku ndamul Sénégal la waroon doon ndamu doomu daara wat na ñi dëkk Touba ndax mën nañ jàpp dëgg sax ni doomu daara nga Chabara waaw bu fekkee bu ñu déggee Chabara Ndiaye mu ne doomu daara nga te mënoo sax tari alxuraan bu jub <laughs> waaw loolu moom da nga koy delloo moom parce que xam nga nit bu fekkente ne dañoo wax ay nit ay lenn yenn wax yi te muy dëgg argument bi ngay a